fitna buñ koy fitnaal li ma yalqaahu ci la muy daje ci coono mbëtt ma sax ca la di njal màkk génn na di woote ci wàllu yàlla di wax gaa ñi wër ko benn waaye ni ko man daal sa coow li dafa bare bare bare te mënumaa déggal waxi kese benn sàmm yëkkati aw yetam takk ci buum mbëtt maa ngay sa ndaamtalu ma ngi ko rayoon ci yoor yoor te ñu ngi ci heure tàkkusaan mu ne ko mbëtt mi daal bu dekkee seede la wax la ni yàlla la yónni bu boobaa ma gëm la njal màkk ni ko mbëtt mi kese mu ne waaw moo déeyoog boromam ni ko yaa bob man ana maa ngi lay laaj yow mbëtt mi man may kan mbëtt ma ni ñokket ni ko anta rasulullahi yow la yàlla yónni yow lay buur bi nga xam ni kattana ma nga ci asamaan ak géej yow mi la yónni sàmm ba dal di gëm Baye Abdoul Aziz ni kon nag wa shahida dabbu lahu risala wa qad yuhdimu bila mujadala la shakk amul benn werante ni xaafizuhu may aji wa toom wa rabbuhu boromam awnuhu mooy ndimbalam kaafiihi doy na ko sëkk fil imami ci ndimmal lan la ñu waxoon yaaye min baadi ma xat xalaa سيد الأمم
وطيني إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم أنا من بعد ما قد خلا واو يقال لها ها أنت حملت بادرا سيد الأمم دفلني من بعد ما قد خلا واو يقال لها ها أنت حملت بادرا سيد الأمم من كل وصف حميد عاد أفعالك فوضي لما جاء البرايا يوم مفداح مولانا إذا ودعت سمي محمدنا الأمركت من أي كتمان فتغتني أمرنا من كل وصف حميد هذا أفعال تفضيل رجاء البرايا يوم مصر شبين الدفل إذا ودعت سميه محمدنا الأمركت أمرتني أن يكيد من فتغتني
من كل وصف أبيد هذا أفعال فوضي لرجاء البرايا يوم مصر شبينا طفلا إذا ودعت سمي محمدنا أمرتني أن كتمان فتغتني أمرنا من كل وصف أمين هذا أفعال تفضيل نجاء البرايا يوم مسلم شبينا طفلا إذا وضعت سمي محمدنا أمرتني أي كتمان ف تغتني
من كل وصف حميد هذا أفعال تفضيل رجاء البرايا يوم مصداح مصطفى قولي أعيد لها من شر ذي حسد بالواحد الصمد الموصود بالقدم
من كل وصف حميد هذا أفعال أفعل تفضيل رجاء البراء وترك تجد فلن وكان أشجاع أدخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والإيمان أنا من كل وصف أبيد هذا أفعال
فوضيل تبايا والبرايا يوم مصر صبي طفل وكان أشجاعا أبخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والإيمان أنا من كل وصف حميد هذا أفعال ووضيل تبايا رجاء البرايا يوم مصر جني طفلني وكان أشجاع أفخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والإيمان من كل وصف حميد هذا أفعال أفعل تفضيل رجاء البرايا يوم مصر صبيان طفلا إلى ما كان تحتاج تبينا شجاعته أهل المدينة سائل الليل فاضعين
من كل وصف حميد هذا أفعال أو دين الرجاء البراء يا يوم مصر بني طفلني ما كانت تحتاج تبيينا شجاعته أهل المدينة سائل ليل فزعين أمرنا من كل وصف أمين هذا أفعال ووضيل الرجاء البراء يوم مصدع من بعد من بعد ما خلق لها واو يقال لها ها أنت حملت بدرا سيد الأمم حاج مالك نانا min baadi ma xat xalaa gannaaw ba wéyee ba dépassé ba demee waawun juróom benni weer ci ëmb ga yuqaalu la dee fi waxe lahaa ñeel yaay aminatu ni ko haa yëgal ni anti yow xumilti badran yaa ëmb sang bi مولانا مام حاج مالك نانا من بعد ما خد خلا gannaaw ba nga xamee ni wéy na waawun juróom benn weer ca ëmb ga yuqaalu la dee fi waxe lahaa ñeel maam aminatu ni ko haa yëgal ni anti yow xumilti badran yaa ëmb weer wati mu ne ban weer ni ko sayidal umami sangu xeet yépp yaa ko ëmb ida wadaatihi jamono joo ko sippee sammiihi la mari jigéen ne day ànd ak yaa yaa mariamu uqnutii li rabbiki wasjudii warkaai maa raakiina moo tax sammiihi ida wabaatihi jamono joo ko sippee sammiihi tudde ko muhammadan ka nga xam ne lu mu jëf ñu sant ko attumi nëbbal al amra mbiram ay yëkkit maanin gu mu doon ci nëbb fa boo ko nëbbee tax te ni mi nga màng koom-koom àddina ak walaxira bu léppam ne fàng du sotti yol ma ka nee na astainu ala qadaai alxawaajibi alkitmaani fa inna kulla di niamatin maxsuud nee na soo bëggee sa aajo faju del nëbb sa leen ni mbir ndax xéewal gu ne dañ koy añaane borom benn xéewal rek ngay am ñëpp yéene la ko simplicité simple xéewal la gu la kenn dul añaani te moo gën a rëy ci xéewal yi de bu fekkee rëy moo gën a rëy rëy ci nattu yi simplicité moo gën a rëy ci xéewal yi moo tax njool màkk moo gënoon simple ñëpp rasulillah su dëgg ma lee mbooloo ñu di ko xaar bu ñëwee ba jub leen toog te seen gannaaw si ne Boubacar bi dinaa gis mu di ko def gisoon naa bàyyi Cheikh Alhaji Abdou Aziz di ko def ñëw na fii ci journée Cheikh Ahmed Tidiane yi fekk ñëpp passé dara yi génne gomm yi xeeñ lëj ko lañu kenn amatul place mu yegg si ne groupe ci sukk ñëpp toog ci suuf si si widd ma ni ki toog ci suuf a jubóog yàlla de njol màkk dafa dëkkmal mbooloo waaxu wuti leen ñu di ko xaar mu yegg si toog ci seen gannaaw ñu jóg wëraat ko mu nekk ca digg xam ni moom la ñuy xaar benn arab di ko xool di ko xool bay kat-kat ci mu ni ko hawin alayya wàññil fi nga ma teg inama anamrum na atin taakurul qadida benn jigéen a ma jur fii ci màkka comme yaayu ñëpp daan lekk seeli gëleem nit rek la inama ana basharu mislukum te doon nit moo am solo de doon nit moo am solo boo nitee nag mu sotti waaye boo ëppalee sa bopp nit nattu dab la ci mbedd du baax de bu melee ne kii may bañ a wax di du baax benn waaye bu déclaré woon ni du lekk ndeke day nëbbu di lekk rek bés mu génn ci mbedd rek biir buy daw dab ko moo moo wane ni du doomu aadama nit lekk ak naan ak nelaw ak yeew ci la bokk saxaaba yi dañoo réunion ci kër Ousmane ibnu Maz'un al-Hujubi am ku ne man dootuma lekk yàpp am ku ne man dootuma nelaw guddi am ku ne man dootuma gis ak sama soxna coow la ne kóor yonent bi dégg ko ñëw kër Ousmane ni ko waaw ndax lii ma dégg fii lañ ko waxee mu ni ko lan la mu ni ko dafa am ñu ne dootuñu lekk yàpp am ñu ne dootuñu nelaw guddi am ñu ne dañuy woor bëccëg yépp maasale ko ndaw sa ni ah daje woon nañ ci sama kër jëkkër ndigal ba mu ñëw nga laaj ko kooku kat jàngu la kat mënoon na caa dugal gémmiñam naan waaw waaw fii lañ ko waxee waaye dafa ne xaaral ba sama jëkkër ñëw ñu laaj ko jëkkër ji ñëw njool makka laaj ko mu ne waaw fii lañ ko waxee de njool makka ni ki ne woon di du lekk yàpp nee leen ko muy lekk yàpp ndax ana akulu laxma man damay lekk yàpp man rasulillahi ki ne woon du nelaw wax leen ko muy nelaw ana anaamu man damay nelaw ki ne woon day woor bëccëg yëpp ni leen ko muy dog yenn bëccëg yi di woor yenn bëccëg yi ana asuum wa aftiru man damay woor di dog te ana aalamukum billahi wa axshaakum lahu te man maa leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal fa man raxiba an sunnati fa laysa minni te man ku bañ sama sunna bokkuloo ci man nattukaayu yàlla ci man la andaar ji bu yemee ci bosam nett na bu ca yemul nettul سيد الوجود وكبد الشهود سيد الوجود وكبد الشهود man dégguma dara de dégguma dara نورا تاني أبحي وإياك ولن يعيشم وطيلة حقا عند الرحمن لقد ضاع حياتي
yàlla bind tànn ñu ko neex nee na ñi ma bind nit ñee ma ci gënal nit ñi julit yee ma ci gënal julit yi yonent yee ma ci gënal yonent yi trois cent treize yee ko ci gënal trois cent treize yee vingt cinq yaa ko ci gënal vingt cinq yee cinq yaa ko gënal mu xëy toogloo kaat yi yëkkati kenn ka kooko tax ñu daje fii ci réussite nga ne sunu borom nee na maa tànn mbindeef yi nit ñi gënal ma ci ma teral leen lu ma teralul ku dul ñoom nee na nit ñi julit yi gënal ma ci julit yi yonent yee ma ci gënal yonent yi jeyshun trois cent treize yaa ko ci gënal vingt cinq yi la alquran signalé cinq yi ñooy ulul azmi boo leen bëggee lim noox ibrahima muusa isa tegal ma ñeent ñooñu foofu yëkkatil ma kenn ki ashraf alxaqaiq alinsaniya اعلم انه لما تعلقت اراده الحق تعالى بايجاد خلقه ابرز الحقيقه المحمديه من انواره ثم صلخ من العوالم كلها علوها وسفلها ثم اعلمه بنبوتي وادم لم يكن الا كما قال سيد الوجود بين الروح والجسد ثم انبجسر من عيون الارواح وهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر على جميع الموجودات ولما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه إلى وجود جسمه وارتباط الروح وانتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر وظهر محمد بكليته جسما وروحا وكان لدى الفردوس من زمن الصبا وأصواب الشمل الأنس محكمة الشدى يشاهد في عدن ضياء مشعشعا يزيد على الأنوار في الضوء والهدى فقال إلهي ما الضياء الذي أرى جنود السماء تعشوا إليه ترددا فقال النبي خير من وطئ الثرى وأفضل من في القير راح أو اقتدى تخيرته من قبل خلقك سيدا وألبسه قبل النبيين سؤددا وبهذا قال الشيخ المشايخ الذي لا يجارى ولا يمارى صاحب العلم والمهرى الحاج منصور سي ابن شيخ الحاج مالك سي وكان نبيا بالنبوة عالما وآدم بين الماء والطين ساويا fi tasu ngeen may defalaat ba tant bi riir wala ma dem noonu duma ko firi mu ne wa kaana nekkoon na moom rasulillahi nabiyan jib yonent aaliman di ku ñu xamal bi nubuwati ci nubuwaam ñol ma ka xam na ni mooy sangu-sang yi wa kaana te nekk na jamono yi aadamu maam aadama saawiya di aj yam ca bind ga baynal maa i diggante ndox wa tiin ak banda okay dégguma de nga ne sayyidul wujud wa xayru shuhud jazakumullahu khairan man yàq yàkkamti wu ma de du ma romb lu leerul de yàkkamti wu ma de benn benn péng péng ma tas ko ba mel ne tasineer na leer nañ huwa mu ne bay alxaaji mansour ibnu cheikh alxaaji malik si 44 la def xaside bi ci rawdu rasulillahi ci bisu altine mu ne huwa moom rasulullahi addawxatu mooy garabu ndanjantaan ga mooy garabu pénc ga al uzma gu màgg ga yudallu def na kerloo def na wute ker bi zillihi ci keru yent yàlla muhammad يمن بلا من
يمن يمن يمن day maye moom njol mag bila man nin te du ñaaxaate boo ko set see wax ko soxla mu faj ko nga del siwaat ci ngoon mu faj ko nga jëlu ko teel mu faj ko nga yoor yoor lu mu faj ko nga marax lu mu faj ko nga njolloor lu mu xaaj faj ko nga xaaju guddi mu faj ko bàyyi sëriñ Fadilu Mbàkke bala maa continuer dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ci moom bëgg ko tromper nuyu ko fekk mu nga toog di muuñ rek mu ne ko bàyyi fàllu dama am nattu mu ne ko ban nattu mu ne ko man daal benn généralu tubaab laa rey ñu nar maa tëj kaso te avocat laa nar a jël tamat na cinq cent mille mu ne Dramé jox ko cinq cent mille te bu ko laaj dara Dramé jox ko cinq cent mille waa ja bëgg a dem mu ne ko xanaa doo ñibbi mu ne ko ah kay mu ne ko looy passé Dramé jox ko ñaari junni Dramé jox ko ñaari junni mu bëgg a dem mu ne ko xanaa bàyyi woy gone mu ne ko ah kay mu ne ko jox ko junni mu passé mu dem ba sori sëñ Fallou ni ceqet ni kuy jëflanteeg yàlla nga defe ni mën nga ko nax baadool ak tubaab sax ku ko rey da nga tambang tambang fii xuma généralu tubaab nit ñee bare tappale mu ne léeg-léeg nga dem ci nitu yàlla defe mën nga ko nax mu yëkkati la jox te fekk naxu la naxoo ko jëflantewul ak yow yàlla lay jëflanteel Seydina Ali ibn Abi Talib ci mujjug dundam sarax bu muy génnee da cee tuur parfum ñu ne ko lu tax mu ne kii koy nangu nanguwu ko ci loxo yàlla laa koy teg te loxo yàlla lu ma ciy def dama koy parfumé kuy jëflanteeg yàlla mën ngaa defee da nga koy nax waaye mënoo ko nax te caaxaan war naa xew yi caaxaan yi bare na te dara sottiwul nañ faf ñam dëgg nag te sax ci caaxaan war naa xew yi de caaxaan yu bare jaaxaan rek lay jur yamunnu bàyyi si biir xaaji Mansour nee na yamunnu day maye moom rasulillahi bila mannin te du ñaaxaate wa yan fii day dàq day satal ci xol almaasiya ay moy huwa almuntaha huwa almuntaha huwa almuntaha fala wa rabbika la yuminuuna huwa almuntaha حتى يحكموك فيما شجر بينهم هو المنتهى رسول الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة هو المنتهى لقد من الله على المؤمنين هو المنتهى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلم الكتاب والحكمة هو المنتهى موعدة كايبة مجدا تتدلى kuy puukare njool makka la ko ëpple kuy sang sangulu boobu mooy ñëwul bu ñëwee di sang sangul mu ne huwa almurtaja huwa almurtaja Baye El Hadj Mansour si nee na huwa moom rasulillahi almurtaja mooy ka ñuy yaakaar yow man ci bés ba nga xam ni yashi bu day béjaawal an nawaasiya cambar ga ay kawar ñi nga xam ne dañoo am faatu woon ci ndaw bu ñu dekkee tiit maay tax seen kawar yëpp béjaaw bàyyi laaji Mansour nee na huwa almurtaja rasulillahi ku ñu yaakaar yow man ci bés bool ba ba nga xam ne yashi bu da cay béjaaw an nawaasiya ay kawar nga ne سيد الوجود
وليس عاقبا يكون بصيرا يرى احمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يشيب النواس
سيد رجل
سيد الوجود عليه وسلم الشيخ المسجد إذا ما هم دين المسجد إذا مخاد مبرد إما ينانك وعاكرم إذا مسجد فقد يخان فما خل تقبلك تمام من الصلاة نرو يجا يكف ينانك وعاكرم أول ما تجد تخمدين يكتب خلاص تخمدين تخمدين ويم الطلاق ولم لما تنجي او تكون يدل محمد يجيد زوجة أمة العالمين والجمع تماما يا محمد النبي
النبي
مرة مصمم في خناي شباب خلق
nabi moo tiinteen ba taxaw dalal baraam ndax ma daw xeet si tuuru mel ne mbaaw soxna si yéen xol ba ne
محمد الذي جرناه سيد الوجود والفكر الشريف.
محمد من جرناه لا إله إلا أنت وإسلام يا محمد سيد الوجود والفكر الشريف.
رسول الله طائفات بنت جد الحسين قلت ملك سكران
njol makk nee na
وأول مشفي سيد الوجود
أول من يركب البراق أول من ياخذ اللواء الحمد بيد يمينه محمد أول من يدخل جنة محمد صلى الله عليه وسلم هكي wax nga dëgg rasulillah yi nee na may jëkk a ñëw ci buntu aljanna dóor ci sama ñaari loxo bëkk néeg bi ni kookuy fëgg kan la ma ni ko man la muhammad mu ni ma yow la ñu woon bala maa ubbi bunt bi na nga yegg si ana aati baabal jannati fa astaftaxu fa yaqulu xaazinu man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu ala aftaxa li ahadin qablak mooy jëkk a wal alburaaq drapeau ba ñuy firee drapeau cant moo koy téye ca loxo nday jooram ñetti bind ca ne jibril escorte rasulillahi ne ca nday jooram rasulillahi nee na mikail dafay ne ci sama gauche nee na may kerlu ca suufu turanu yàlla ba وقال كما تعدى aljanna ne bu ma kenn jege li fekk rasulillahi duggul wala bu dugal koy dugg njol makk nee na jurit yi topp ma ñi ñàkkoon ak ñépp topp ma sayidul wujud wa xibbu rasul taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal tuuti taxawal taxawal taxawal tuuti taxawal taxawal taxawal excès boo ci angal bi taxawal zip down kaay xam nga lu tax mu ne ko taxawal tànt bu ñu tànt rasulillahi buñ ca waxee wax ju sëtam wax du ma ko leb cheikh saadu abihi mooy ne kullu nabiyin képp ku ñuy tudde ab yonent yow ma yubaasul bachar ca bés ba ñuy tekkal dekkal mbindeef taxte liwaa'il Mustapha yaa ngay nekk ca suufu daraapu rasulillahi qad istaqar mu saxta du daanu cheikh saad bu ne kullu ku mu doon ci ñoom yudaa def na la woo keroog ila shafaa bëgg nga ramm mbindeef yi waaye falam yu jib du wuyu moom ka ñuy woo tilka saa ca boobale jamono yaa ngi arrière firi naa loolu nga ne Ablaye jox ko ok Seydou Louzou déet bul jàdd ahlul fasaxati turan bi sana madaxo
Thank you.